ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dollino ay maqaam yàllaw aousu billahi min asheytaan arrajimi wa inni unisuha bika wa suriyataha min asheytaan arrajimi rabbi aousu bika min amasati sayatini wa aousu bika rabbi an yaxadurun bismillahi rahmani rahim man sanna xayrallahi yuxni aw yadur fasaaka fi daarayni soo kaddin wa dur yasir lana jamiha ma yanfahuna wa kufana jamia ma yaduruna yasir lahum bi la ci taasara fa kullu ma yasirtuhu tayasara mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax sunu kilifa diine yëpp waaye naka noonu ñu ngi nuyu sunu kilifa aada yi yëpp di nuyu it sunu mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp duñu ñu suivre su nekk Euh, ci jotaay yi nga xam ne ñoo ngi koy amal ak borom yi xam-xam yi tey nag ñu dellu si waatoon fii ci kilifa gu mag goo xam ne kenn dootu ko présenté euh, ci réew mi ñu koy wax Cheikh Ibrahima Ndiaye Al Quran Cheikh Ibrahima Ndiaye Al ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te di am mbégte ci dalalaat gi nga xam ne ñoo ngi la ko fas yéene dalalaat tey jii ci waxtu wi bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu u'iisuha bika wa suriyataha min asaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaqduruun bismillahi arrahmaani irrahim laa qawla wala quwata illa billahi al aliyu al azim seydna Ousmane ñi ngi lay fay nuyoo di la dalal fii ci kër gi di la wax ni la aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñi ngi ñuy suivre fii ci biir réew mi ak ñi nga xam ni ñi ngi ñuy suivre ci bitim réew di leen wax ne bisimilah. jërëjëf euh, sang bi euh, alhamdulilah euh, nuyo bi am na solo macha allah ñi ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax. te di santaat sa jëmm ji ndax ubbil gi nga ñu ubbil ak yaatal gi bëgg nañ ci lool macha allah tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaanee ponk bu ama am solo boo xam ne euh, dana yitteel jaami yàlla yépp euh, fi ñuy ubbee waxtaan bi rek mooy Cheikh Ibrahima euh, tur yàlla bi nga xam ne moom la sunu borom tëgge jaami yàlla yépp ci biir ismullahil axsam yi tey loolu lañ bëggoon ku ñu ci indil ay leeral ndax jaam ñëpp maase nañ ci bëgg a xam loolu noonu mooy lan yàlla wi nga xam ni moo sabab moo sabab bindum boroom xam-xam yi indi nañ ci ay leeral yu yaatu nit yàlla yi indi nañ ci ay leeral yu yaatu nit ñépp nag soo leen boolee ñoo seeni xam-xam dafa am ku leen gën a xam seen boroom ñoom ñëpp te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nag dafa wax ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ñun yàlla binduñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax yàlla bind xeetam wépp yonent bi nag nee na nit ñi man lañ amal affaire man yonent bi waaye man mi yàlla yónni ci ñoom maa am ak affaire yàlla ana minallaahi wali rasulullahi minni man yonent bi daal maa am affaire ak yàlla moo tax li yàlla di yónnee ci yéen nit ñi nga xam ni gëm ngeen lépp jaaral na ko ci man ma jot leen waaye nag yéen nit ñi kenn mënuma cee weesu àgg ci yàlla ni mu ko bëggee te jaaralul ci man ma jot li ko su xam-xam mu war a xam ba xam suñ borom ismullahi l azam nag boo boolee natt nañ ko ci téeméer am ñu ni juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent la juróom-ñeen fukk yi ak juróom-ñeent boo leen boolee ak ba leen téeméeral ñoom ñëpp mën nga leen a dugal ci benn turu yàlla woo xamante ni si nii amul lu ñuy woo yàlla ci kaw suuf te duñ ko jaare ci turam woowu mhm. turam woowu nag mooy baatub laa ilaha illa laa ilaha illa daal lañ xam ni turu yàlla wi gën diis ci kaw suuf mooy baatub laa ilaha illa allah mhm. yàlla wi gëna a kamaal ci tur yàlla yi mooy baatub laa ilaha illa allah mhm. laa ilaha illa allah xadra yi am ci boroom xam-xam yi nga xam ni seen ruux yi sell nañ ñu fay teew di fa teewul suñu boroom xadra bu ñu mën a dem tur wa fay jiitu ci tur yi mooy baatub laa ilaha illa allah jii di diine yàlla nga xam ni moo concerné nit nit pour mu mat faw mu tabbi ci diine lislaam diine lislaam nag amul kenn ku am pexem ubbil ko jaam ak loo mën a xam ak la nga jàng lu mën a doon a téere boo ko mën a jële nga dem di fa jëli benn baat bu mën a décoder nit bu dugal ko ci lislaam te du baatub laa ilaha illallah laa ilaha nag dafa am wéttal laa ilaha illallah ñaar duñ ko wéttali ñett duñ ko wéttali benn wéttal dong la am muy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. laa ilaha illa allah jëlal calculé mhm. douze lettres la muhammadu rasulullah douze lettres la douze fois douze vingt quatre mooy vingt quatre heures mooy doxal système adduna bi mhm. ci biir vingt quatre heures yooyu keneen amu ci accès dañ lay doxalaale waaye yow doo doxal douze plus douze muy vingt quatre muy vingt quatre heures yi yàlla ak yonent bi ñooy manipuler adduna bi keneen ku mën a doon da ngay jokk ci yonent bi mu bool la ci liy manipuler gars yaa ngi dégg sëñ Tuubaa nag nee na jaami yàlla yi si kër leen man de sekkarab rasulullahi maa ngi ko jële ci yàlla mi nga xamante ni si nii mooy borom la yonent bi sallallahu alayhi baatub laa ilaha illallah ci laa jàpp mu orienté ma ci muhammad rasulullah ma jàpp ci muhammad rasulullah mu xamal ma sekkar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kon Seydina Ousmane nit ki pour mu jëm ci suñ boroom faw mu am ku ko ci tane orienté ko yàlla na ki ci tane nit ñëpp mooy yonent bi mu yónni ci ñëpp yonent bi programme yémul ci nit kese nit ñeeg junne yeeg malaayka yeeg ñëpp boo boole ci programme yonent bi lañ mën a jaar jàll amul beneen programme cooli bari na wax ji bari na làmmiñ yi rëy na waaye noppi daa jot mhm. ñu bàyyi ki yàlla jiital mu jiitu ñu topp ci ginnaaw ndax mënuñu koo jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw boo gisee programme bi ñu bari bloqué soo gisee dëkk bi jaxasoo lu bari nit di ko def du sotti fi tolluwaay bi tollu la nit ñi àggul ba pare bëgg a yóbbu nit ñi. kon sang bi su ma la déggee nit ki mënut a am dara ci yàlla ndareekat yi dafa jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa jëlal ab euh, nit kuy dugg ci lislaam dugal ko ci lislaam lislaam mooy diine yàlla mm-hmm. ci la nit di jaar àgg ci boromam ma ne jëlal keneen nga teg ko ci ginnaaw baatub laa ilaha illallah kuy seede sahadatu an laa ilaha illallah mm-hmm. da mos a gis ku ñuy tuubal ni ko waxal weneen tur wudul tur yenente bi ginnaaw yàlla déedéet doobu jaahil da jàng ba ni ar am kànga mm-hmm. mu ne da ngaa gis li ñuy bari pexe bari pexe ñu ni diw day tuub ci jàkk ji ne ñëpp déglu ñëpp toog di déglu ñu ni ko waxal saadatu an laa ilaha illallah mu seede ko ñu ni ko dugalal turu diw jàll déedéet mosuma ko gis te mosuma ko dégg de ko dégg fenn ci adduna bi nañ weesu Sénégal dama da koo dégg fenn ci adduna bi déedéet waaw ki yàlla teg ci ginnaawam rek moo nekk ci ginnaaw yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa dégg moo tax sëñ wax na wax bu rëy sidna Usmaan nee na <laughs> raayta ni sirra rasulallahi wa qaala laa ilaha illa allah sekkarab yonent bi mi ngi ko jële ci baatub laa ilaha illa allah tax naan la laa ilaha illa dëgg dëgg dëgg ismullahil azam mooy baatub laa ilaha illa allah def na li may doon ndaw ndaw ndaw dem naa ci fukki réew ak ñaar yoo xam ne réew mu nekk dama fa doon gësu baatub laa ilaha illallah ci fukki wali yu ak ñaar yu différent yu bokkul kenn ku nekk lay la gën ca lam yor nga xam ne dañu ma lii ëmb ma leneen lu ma la mën a jox lu dul lii baat bii la muy baatub laa ilaha illallah fathul akbar ubbeeku gi gën a rëy ci li nit di ubbeeku ci digganteem ak boromam ci baat boobu la koy jële baatub laa ilaha illallah baatub laa ilaha illallah moo tax baatub laa ilaha illallah ci la ñuy defar doomu aadama wali wu yàqoog nit simple ku yàqoo ci yam fi ne boo defoon bàkkaar yi gën a rëy ci àdduna doonoonu bi yéefar nga def ko ñëw ci lislaam baatub tuba nga fi duñ la tuubloo de dañ lay seddaloo rek boo seedee seede gi ci boppam mooy indaale tuub gi moo lay mottali jamono bi nga duggee amoo benn bakkaar yaa ñëpp a yem. doone bi nga duggee ci islam. waaw yaa ngi ñëpp yem. yaa yem léegi nag yow bu dee da ngay dugg si ñu jox la benn baat boo xam ni moom dong nga wax mu supprimer sa mbooleemi bàkkaar nga am ay ajo yeneen ci biir bi nga duggee doo jël baat boobu looy bàyyi baat bi di jël beneen baat jël ko. kon léegi ana ki koy ki koy sikkar moom. saa su nekk di ci kër ay lim kooku Cheikh Ibrahima euh, ban ban ban niveau la mën a àgg kon ci ci sunu borom. waaw digganteem ak ak sunu borom subhanahu wa dañuy wax ni baatub laa ilaaha illallah yooyu sax baatin la waaye dinaa la ko leeral. Mhm, bismillah. boo ko saxaloon vingt quatre mille di ko sikkar moom kese baatub laa ilaaha kese nga saxal ko vingt quatre mille di ko sikkar. te boole woo ci sallallahu ala muhammadin wala nga boole ci muhammad rasulullahi bala nga am vingt quatre jours toj moom baatub laa ilaha illallah ci allahu akbar boo teewloo baatub laa ilaha illallah teew ci xadratu ilahiya di ko liggéey nga xam ne yàlla dong nga tax nga koy werd vingt quatre mille nga saxal ko vingt quatre jours te tuddoo tur muhammad rasulullahi salaam mi ñuy sa jëm ci toj waaye day fekk que ne suñu borom rekk moo tax nga di ko si sikkar waaw xam nga Seydina Jibril moo ne yonent bi fii bi ma ko weesoo seey ci leer yi booy nit day am fu muy toll ci suñu borom bu àndut ak bi dootul dem wala moom day toj allahu akbar lu ne mën nañ koo sàn sànjaafoo waaye jëm ci suñu borom déggoo gaay di ko def déggoo fi kenn ni la reñaan naa jëm fenn wax ji wax ji fii lañ koy waxee ci kaw suuf rek mhm. yàlla dafa am ay dictation yu lay dicté pour nga jëm ci moom orientation yooyu nag dafa nekk yoo xamante ni si nii benn bu nekk ci logique gu orientation bi nga ciy jaare dégg nga wax bi hmm. bat bi nag buñ koy waxtaan il faut ñu saraako ko waaw ah. tey bëgg nañ euh, ku ñu dimbali bu baax ci baatub laa ilaha illallah bii ñuy waxtaanee bëgg naa Cheikh Ibrahima nga gën cee euh, xuus xam naa sax euh, am na ci yoo xam ne secret lay doon euh, waaye nag bëgg nañ askan bi ñoo koy sàkku bëgg nga nga nga dikk leen ci bu baax a baax a a baax a baax daal euh, ci baatab laa ilaha illallah nga ñi nga xam ne xam nañ yàlla ba pare nga xam ne ñoom ay aarifuna billahi lañ nga xam ne ñoom tëbb nañ leen ci géeju maxrifatu billahi nga xam ne ñoom dugg nañ ci leerik suñ borom gi ba am ak xàmmee ci ci seen borom ñoom ñooñu kaamilul arfaan bi nga xam ni moo leen war a orienté waat nga xam ni moom moo xam xam-xamu sariya moom moo xam xam-xamu leeru suñ borom gi alquran naan yahdillahu li nuurihi man yasaa wa yadribullaahu amsaala linnaasi wallahu bi kulli shay'in alim nga xam ni kooku doon na alim boo xam ni peeg na mboolem xam-xam yi am kooku laa ilaha illallah ci lay tëbb boppam moom pour mën a orienté gars baatub laa ilaha illallah nit mënu cee toppale loo yées yées ci kaw suuf booy liggéey baatub laa ilaha illallah da ngay am ak taqwa da nga ragal yàlla ci saa si waaw nga xam ne léeg-léeg di nga gis ku koy sikkar waaye la mu cay wut rek mooy am amu àdduna kooku kon dana ko ci mën amee ca lam cay wut waaw ragal yàlla boo ko xasee def moom am amu àdduna boo ko wutee boo ko wutul yëpp am am moom ne la fekk fi nga toog mhm. kañ laa gëj génn fii lu ma soxla ci jaam ñi yàlla li mu wax ci alquraan du dañ wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarsuqu min xaysu la yaxtasibu noonu la ragal yàlla di def nit dafa am wërsëg fu doomu aadama di toll li muy def koy indil juróom yi suñ borom ne na tënk naa ci wërsëgu doomu aadama bu ci nekkee ma dimbali ko mooy yan juróom mooy boo ragalee yàlla boo wëkkiirloo ci suñ borom boo baree looy tuub yaa ngi dégg suñ borom neen boo taxaw boo baree looy taxawal julli ci ni ñuy jullee nag waxuma nii ñuy def nii man yooyu yooyu bokk ak julli normal julli fii ak mënoo teewal sa borom ci biir julli gi julli goo yaa ngi dégg waaye julli goo xam ne yow miy julli yëgoo sax luy julli gi julli googu moom amul solo Mm-hmm. wala boobu man du jullee noonu. da ko war a teewlu bu may julli daanaka rek génn na àdduna bu may pare. Mm-hmm. kenn ku nekk nag fa nga toll ngay jullee ñu bàyyi noonu. ma ni juróom yii dafa bokk ci nit ki bu ci nekkee rek ndimbalul yàlla da koy fekk fi ci ci fi mu nekk juróom muy génn di laaj kenn leen nam ndax yàlla mi mu nekkal moo yor léppam. dégg mm-hmm. baatu laa ilaaha illa naa nag. moo tax ñu bind àdduna baat boobu ci boppam salaatu na bi gi ngay dégg nga xam ni moom mooy mooy seule solution bi nga xam ni moom moo fi nekk comme solution exactement ci biir baatub laa ilaha illallah lañu koy tëbb moom salaatu na nabi waaw salaatu ala nabi mooy solution bi nga xam ni moom moo mën a régler exactement adduna ak li ci biiram ndax nee naa la gannaaw yàlla yonent bi loolu mooy la vérité ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la naxul dina la teg ci ginnaaw yonent bi yaa ngi dégg Seydi Aji Malik Si nee na xaqiqatul kawn aynu saati talxatuha ifadatillahi nuurullahi ya allahu ok dégg nga la ma wax dëgg dëgg dëgg gi ñuy seet ci kaw nu bi loolu daal moom jox na ko baat bii muy baatub laa ilaha illallah te leeru yàlla gi ciy génnee moom rek moo mën a ñoddi nit ki teg ko ci loxol yàlla mi ko sàkk mm-hmm. nit nag dafa am lu muy réeree Seydina Ousmane toujours mooy gis nga nit feneen fu ñu la jëmee bañal dañ lay tardeel lii moom maa la ko wax yow feneen fu la ab jaam ni yow jëme bañal dalay lay ndax jóge woo foofu te jëmoo fa nit ci yàlla mi ko sàkk la jóge ci yàlla mi ko sàkk la jëm ku la orienté jëmale ci yàlla topp ko ku la orienté jëmale feneen ba ko fa <laughs> jëmoo fa moo la fa bëgg a jëme waaye jëmoo fa nit fa mu jóge la jëm inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu leerul leneen loo bëgg buntu bi mën a ubbi lislaam caabi ji nga xam ne moo mën a ubbi lislaam muy laa lislaam li muy li muy rëy rëy rëy rëy nit amul benn clé boo ci mën a dugalee nit lu dul da nga koo seedeloo saharatu an laa ilaha illallah te mooy baatub laa ilaha illallah bu duggee mënoo tëjee lu dul muhammad rasulullahi te da nga koo seedeloo ni yonent bi sallallahu alayhi wa ndawal yàlla la dugg na tëj na lu koy fekkaat ci biir leneen est-ce que yaa ngi dégg adduna <laughs> doomu aadama bi fi ñëw dafa am sababu lu ko fi indi loolu muy première priorité yi gis nga nit ñi coow li muy bari bari bari bari leen yàlla digal da koo def ay farata yàlla neen maa leen julloo maa leen woorloo maa leen ajloo makka maa leen saraxeloo maa leen seedaloo baat yii zakat mooy sarax juróom yooyu yàlla ni farata la yeneen yi nga xamante ni si ni nag dañ la ci orienté kenn mënu la koo digal mun ngat muy force ci yow ku dul yonent bi sallallahu alayhi ndax moom moom matal ña yàlla njëkkoon a délégué gannaawam yàlla délégué kenn ña yor programme bi ci moom la ñuy rootee pour leeral mhm. naanu waay mag ña daan nañ ko wax naan leen ci leeri rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax moo leen di gindi ci suñu boroom leeru rasulullah nag mi ngi ballee ci lislaam ji lislaam diisul de des fois ñu yan ko nit bam diis lañ ca boole la war a yennee ko mu woyof tooy mu dem yoonam diine lislaam diine yàlla la yàlla lim programme ci nit l'islam da cee bokk moo tax mu orienté ko ci <laughs> jamono yi may gëstu di wër adduna bi fu ne ma dem fa yow am na fuñ ñu daje waaw ah, mën ngaa wax fu ñu daje nañ ne Gabon waaw Gabon mhm. junnee dañ faa bari waaw ah, loolu daje nañ waaw <laughs> daje nañ Congo daje nañ Congo waaw yaa ngi dégg dëgg lu gu wér. am na daan jëfandikoo yooyu daa nga ci teg sa bët. waaye biir émission nañ ko bàyyi. Mm. te <laughs> waaye dama am na ci loo xam nag euh, bu ñu demee ba ci kanam nag. Euh, waaw di ci ñëw incha allah waaw ndax. Mm-hmm. dafay am doomu aadama bi fu muy toll bu ko yàlla waree dénk lenn ci mbirum nit ñi faw mu jug dugganteeg doomu aadama yi. te adduna nag duñ lay wax ni la monde bi nit ñi ay milliards lañ nga bëgg a basé wu ci douze millions pour àtte leen trente trois pays laa def bërki démb bi may def sama calcul gis naa ni man ci sama dund li muy gàtt gàtt fréquenté naa soixante et un kon ñàkk lu ma xam. juróom benn fukki waliyu ak benn. waaw mooy soixante et un waliyu. fréquenté nga leen yow sa jëmm ji. waaw. toog naa Nigéria benn nitu yàlla boo xam ne am na lu ëpp douze millions taalibe population Sénégal dégg <laughs> di gëstu ci moom ismullahil azam ndax man li li bootu ci man ak lumbu leer gi nga xam ni moo rees ci sama biir man dafa dépassé may yor programme boo xam ni ay quelques personnes rek laa ciy lijjanti man maa nekkul ci étape boobu. Mhm. yaa ngi dégg suñ borom nag mooy ubbi doomu aadama tëj ci secret boppam dëxëñ ci mbóoti boppam noonu lañ koy waxee. Mhm. yaa ngi dégg waaye yàlla léppam bu munta jariñ nit rek mu génn ko mu génn ko lenn yàlla loo xam ne. doomu aadama munu koo jariñoo loolu moom yàlla nekku ci suñu borom daf ciy daal di génn daf ciy génn moo tax nit digganteem ak suñ borom li suñ borom di kawe kawe sax yàlla may na nit ni ko settantal ma man yàlla ësutuma laak leneen wama miru ilaa liya'budullaha bala nga maa gëm settantal ma toogal nga dem toog nee diagnostiqué ma lijjanti samay mbir ba xam man maay kan nga door a sóobu ci samay mbir man asuntuma sa moroom sa moroom nag moom bu nekkul ci lu leer ay seetantaan ba ko fa foofu la adduna bi toll nit ñi li leen di tardeel ñu ne ca xas loolu nag moom dinañ ko ba moom wala képp ku ma gisit ngay orienté nit ñi foo xam ni jëmul kër dinaa ne gars yi wàññeeku leen waaw loolu de askan bi soxla nañ ko lool euh, sang bi bëgg nañu it euh, nga dimbali ci jaamu yàlla yëpp nag wax dëgg yàlla ndax jamono yi jaxasoo na te lëndëm na te ndaw ñi rawatina xamatuñu euh, fu ñu jëm. waaw ndaw ñi ñi ci ëpp lañoo bëgg a boole ñaar yu bokkul mooy lu lënt mooy lu lëndëm ak lu leer nañ ñi bëgg a boole doo nattee àdduna bi Sénégal rek ngay xool xool xool xool lu mu gëm jaaxal la ku woote muy la bu ñu wootee la Iblis ñu ñëw taxaw ñoom ñëpp luñ loolu de yaatu lool ci ci dëkk bi bu ñu wootee yàlla ñu ñëw taxaw ñoom ñëpp jooy mhm. luñ fi wut yenent bi nag yàlla da ko catégoriser nit ñi dani ko ñii ñi ngi nii taxaw nee nañ yow lañ gëm ak man waaye de man yàlla maa ngi lay xamal ni la gëmuñu la gëmuñu ma ñii àdduna rek lañ gëm inna haulaai yuhibbuna al-ajil gaa yii ñoo taxaw fii ni yàllaa ko yonentam rek lañ gëm li ñuy wax dara du ci dëgg gëmuñu yàlla gëmuñu ab yonentam nit ñi àdduna dong lañ gëm waaye nag araftu leen ñoom nit ñi nañ xam ni bis bu diis mi ngi ma teg ci seen kanam te seen wax ji bari na lool kenn ku ne fëgg na dëndam ni man la yàlla amul ñaar waaye ndokk bi alquran ne ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wal am yawma isin lillahi yàlla nee na man wax naa leen ni benn bakkan mënalul moromam dara moroom bakkanam dara suñ borom mi woy sabab bi rek moo maîtriser mbir yi ñun nag ñaar yi gën a war a jaaxal nit yéemuñu mooy nuñ def ba juddu loolu dañoo waroon a jaaxal ak lu nekk ci suñu ginnaaw faatu bu ñu dee fu ñu jëm. waaw loolu lu mat a leeral la ci jamono ji ñu toll nii ndax nit ñi. boo ko dee seetlu day mel ne ragalatuñu dee ndax dee ngi seen kanam saa su nekk ñu gis ku nu yanu jëmale ko ci euh, sunu borom mu war a dellu te nit ñi ba tey Cheikh Ibrahima mënaguñoo wàññeeku jublu yàlla loolu lan mooy problème bi dee jëtt ragal ndax faaw nga def ko te dañ ko bind ci yow jëf ji ngay jëf laata nga dee jëf joojee ju baax ji waaw jëf ju baax moom loo ci def doyul waaye jëf ji ngay jëf laata ngaa dee jëf joojee moo jar a ragal ndax lu waay jëf kat fekk ko sa biirum pax hmm? gaa yi nag des ñu yan la loo xamante ni si nii day diis gann ci ay wax waaye da ko dul yóbbaale boo demee fekk fa lii boo demee fekk fa lii doo demee fekk fa lii loo defalul sa bopp boo demee doo ko fekk si biir bàmmeel da nga mës a gis kenn ku la lekkal ba mu rees nga mu jariñ la dara mbir yi nañ ko natt ci sariya bii ñu yor ñun <laughs> alxuraan ji kenn ku nekk li nga fi defal sa bopp moo lay jariñ yow danga maa mën a nelawal danga ma mën a yeewal danga ma mën a demale entraînement hmm? yooyu nga xam ni mënaloo ma ko yow tam leer ma ni mënaloo ma ko maa ko mënal sama bopp jaamu yàlla gii mu leer ma ni maa ko war a defal sama bopp lu ma ko tee mën a defal sama bopp ngir ëllëg mu jariñ ma te loolu rek moo la mën a jëriñ ëllëg muy jaamu yàlla waaw jaamu yàlla leneen loo gis nag nga nekk ca nee naa tàddeel wàññeeku jot na ci jaam ñi Seydina Ousmane mm-hmm. bisimilah ndax baat bii dafa nekk loo xam ne mën naa jël waxtu wépp waññeeku jot na ci jaam ñi lii nag xam naa ne moom seex euh, bi xam naa ne euh, xat nga lool euh, sa yitte bari na lool waaye nag lii moom faw nga dikkalaat ñu ci bu baax a baax ci yeneen ponk yi yeneen yeneen yeneen waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko war a amalaat ak yow faaw nga dimbali rek ndax askan bi ñoo yittewoo lii ñuy waxtaanee nii ndax jamono ji moo doy toll foo xam ne kenn xamatul foo jëm kenn xamatul nooy toppi sax sa borom subhaanahu wa taala waaye dañuy jàll ci euh, ñaareelu laaj bi rek tey moom euh, sama yaram dafa tàng lool ndax fi nga fi nga fi nga dikkee nii man sax dama rus ci sama diggante ak sunu borom subhaanahu wa taala léegi ñaareelu laaj bi euh, mooy Cheikh Ibrahima dañoo seetlu jaam bi nga xam ne wërsëg daf ko jafe loolu dafa bari mu am ñoo xam ne dañuy yëkkati seeni ay koppar di ko jox ay sëriñ yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum ñaan wërsëg jafe lool amaana muy kuy jaay te munta jarle amaana mu koo xam ne mën na sax bëgg borom kër du ko mën a am loolu ci wàllu wërsëg la bokk amaana ki nga xam ne maanaam day bëgg ñu pal ko mun topp ca du ko mën a am li eh, ñi nga xam ne dañuy yëkkati seeni i koppar di ko jox sang si ñu koy tuddee eh, sëriñu ñaankat sëriñ bi yëkkati dara jox la moo xam sunguf moo xam alquran jox la ko yow nga dem defe ko na nga xam ne noonu la la ko sëriñ ba sante te ginnaaw bi la nga doon sàkk doo ci mën a am dara ñaari mbir yi daal lañ bëggoon a xam lan mooy lan moo koy waral lan moo ko sabab wërsëgu jafe woowu ak sëriñ bi nga xam ne dalay ñaanal mu defal ko na ko waxee te doo ci am dara ci na ko bëggee loolu bëgg nañ ko ñu ci dimbali sang bi waaw laaj bi leer na li ci njëkk mooy doomu aadama d'abord digganteem ak boroomam faw nga am ci xam-xam door ko ci mën a dimbali nit day am yu koy gàllankoor nit ki bu defee ay bàkkaar Seydina Ousmane yow mi koy ñaanal boo xamul nooy tuubee say bàkkaari bopp nooy tuubee bàkkaar ki ngay ñaanal te fii tuubaloo ko bañ jéggal ko bàkkaaram yooyu nga door a dugal li nga koy waxal dañ ko accepté ndax moom dañ ko disqualifié déjà kon ki ngay ñaanal su su fekkee mu am bakkaar yow mi ko ñaanal da ko war a tuubal. nit ki jamono boo jógee di ko defal dara lu jëm ci digganteem ak boromam la ko bloqué faw nga dindi ko loolay door a jàll. nit mooy yàlla dina ko tëj nit ay bakkaar dina ko tëj nit cat dina ko tëj nit ci boppam nit ni moom dina ko tëj. waaye yiy tëj doomu aadama xam-xam bu koy tijji faw nga am ko door a mën a ñaan ñaan lañ bëgg a fawee ci réew mi te ñaan yombul mais secret yi ko war a ubbi ci alxuraan yëpp sunu borom def na ko ci biir alxuraan def na ko ci moom ñaan mu nangu ci alxuraan ñett téeméeri millions yi sëriñ yuy yëngu ci sunguf boo leen dajale woon bopp di leen ñaan loo loo xam ne danga ko koo soxla ci une heure de temps ba ñëw ci man ma ñaan ko ci benn minute. ci. yaa ngi dégg asib bun barqiya ne junne dama damaa am lu ma bëgg ngeen def ko ci ndigalul yàlla ñuy joxe temps yoo xam ni kenn xamul temps bi nan lay toll pour loola pare te di ko ci diggante xef ak tëb te yàlla moo sax gën a gaaw xef ak xët yàlla gën a gaaw xef ak xët ndax yàlla innama amruhu isaa arada shay'an an yakuna lahu kun fa yakun ci mhm. nekkal mu nekk nag diggante bi ngay waxee nekkal boo jubee suñu borom bala ngaa pare nekkal googu yàlla nekkal ndax nee naa la ku àgg ci yàlla moo gën a naqaree drisé ndax da koy jéem a yóbbu tamal fa suñu bëggee ñaan yàlla nag ñoom faw ñu dellu ci sikrullahi taqoo tudd yàlla ak salaatu ala nabi di julli ci yonent bi waxtu wu nekk nit mbiram dafa diis du ko jug yanu ko ndax léegi boo selu ñëppay ñëppay ñaan waa ñaan moom ku ne mën nga koo def waaye ñaanal nit ki ci ab aajo la nit ñi ñëpp mënul waaye mën ngaa ñaan ku wax nangu nam dit waaye ñaan bu ñuy wax ñaan nga nangu googu la ñuy wax moom la nit ñi mën a tul te am na ndax léeg-léeg nga dégg ku ne dem naa ci ab sëriñ diggu sàngam yëkkati samay xaalis jox ko ko waaye la ma ñaanal gisuma ko loolu it lu doy waar la waaw xam nga yow barki dem am na profit woo di la wax la ñaanaluma ko waaye bu ko seetalee lu mu moom kay la mu wax dane Sénégal yëpp kenn kenn mënut a seet la ma wax moom waaw wax dëgg yàlla moom dina xam ni kii mën na maa ñaanal yaa ngi mhm. waaye koo xam ni mbirum doomu aadama mënoo koo gis ba pare bëgg ni mën nga koo ñaanal li koy ñaanal ko wax ne nag day nangu moo tax ijaaba faw nga am ko faw nga am gëstu ci diggante sa doomu aadama yi nga xam ni ñoom li suñ boroom di di di di di di di muur ci kiiraay yi am na ci ndimbal yow ngay door a mën a orienté doomu aadama yi di door a mën a jëflante ñoom ci yooyu xam naa ni daal te émission bi ngay waxtaanee moo diis moo tax faw bi kawe mm-hmm. waaye wàllu ñaan yàlla nitu yàlla yi ñoom la yàlla dénk kaw suuf si ñoom ñooy orienté ñoom ñooy def ñoom ñooy dindi wala qad katabna fii sabuurin min ba'di zikri anna al arda yarisuha ibadiya salihun loolu alquran la yàlla moo wax ni dénk naa zikarkat yi kaw suuf si pour nga doonub sëriñ faw ngay tudd yàlla lu bari nga xam ne kon su ma la déggee aajo ju nit mën a am bu ñëwee ci Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mu fajal ko ko. sëñ bi tur fukki at ak ñaar laa ko tërbiyu di si kar man léegi laa mel nii nit ñi boole ma ci seen bopp waaye bu njëkk ñëpp ma ci génn woon ndax jëm ma jëm ci suñu borom. dara yombul. tur mu nit di dof werd naa ko mu nit di werd di dof werd naa ko dafa doon. man nag damaa teel a am fulla yi lu dul tur yàlla du ko liggéey yàlla moo ma teel yee ci bopp damaa mënut a gis man wenn tur gën a mat tur yàlla muy gis mu la te am na ci kenn soxla ku dul yàlla kon weneen tur tur yi yëpp man daanaka ni intéressé wu ma dama ni ku ma a jox weneen tur wu dul tur yàlla du ma ko liggéey ah loolu leer na sang bi euh, tont yi am na solo lool euh, macha allah comme ni nga ko waxee sànq rek tey moom euh, waxtaan bi dafa dafa diis lool waaye it ñu amoon laaj boo xam ne it faw ñu laaj la ko ndax dafa doon lu ñëpp maase jaaxle te mu sonal nit ñi loolu mooy rab yi nekk ci biir nit ñi rab yi nekk ci biir nit ñi di leen yàqal di ànd ak ñoom di leen yàqal loolu lan moo mën a tàqale nit ki ak rab waaw ca at yële ñu génn newoon naa baytaala nit ñi même bu ñu xamul woon dara am fit rek rab yi duñ leen yàq ñu mbir ñu dafa dafa doon lu sonal nit ñi nga gis koo xam day toog ba mu muy sayaka ay ay takk yóbbu ci ci ci ci ci di ko defal di ko sangat waaw loolu dafa bëri rab yi dafa bari non man loo gis xam-xam ma koy def barki démb laay door a pare ci famille lum boo xam ni dañoo amoon ni àndandoo ma leen di ñaanal ci biir ñaan gi am na lu ma feeñu ñaari yoon ni ma bàyyil famille diw bi ngay ñaanal kooku ndax boo ragalee di nga continuer. déedéet <laughs> man de ñëwee ko. yaa dégg waaye teewul. kenn ku ne la na woon kéew dindi naa ko ba sa xol sedd ñu indi seeni teraanga lenn lu nekk daal li ma ci mën a wax mooy bu la ci yàlla dénkee mbir loola la nga ci mën a dimbali jaar wala rom nag xam-xam bu am la rab lu am la lu existe la mëneen na cay ñaanale nu ne ndax rab kenn ku nekk ak fan cay jaar mm-hmm. waaye alxuraan moom fi mu ciy jaar mm-hmm. bokkut ak kenn fu mu cay jaar alxuraan. waaw alxuraan li ko ñëwee bëriwul. nit sax ñu muul alxuraan. parce que nit bu taqali koog sagoom boo ko dee indiwaat ci alxuraan mu koy jaare mu ñëw. nga xam ne kon lépp mi ngi ci biir alxuraanul karim. waaw benn nitu yàlla day neena. Mhm. nit ñi dañ indi ci àdduna li ñuy tudd yàlla day. dañoo leen li ci àdduna li ñuy tudd yàlla day ëpp li ñuy wax seen soxla ne dangay gis nit bu yeewu suba ba ngoon di waxtaan li nag lippoo nag nekk ay gént yu ñàkk fay ndax xamul moom lan lay représenté ci kaw suuf exactement moom luy sababam xam nga loolu moo gën a doon kumpa ci kaw suuf dund ba jub fii te xamuloo fi doon wut dund ba jub fii te xamuloo fi doon moo gën a doon kumpa ci kaw mhm. Sénégal foofu la toog kenn amul itte ci boppam mhm. topp àdduna ak pañaxel mi ci biir rek nga xam ne wàllum rab it moom it euh, euh, fa tabarakallah euh, sunu borom ba am na lu mu la ci may waaw rab dama cee wax waxaat ci waxaat ci rab yi dama leen yilif comme ni ma yilifee lenn mhm. ci doomu aadama yi man nag fi may gis nii damaa jaar fi ma war a jaar ba pare moo tax li ma ñemee bëriwul faj en distance mosu nga koo dégg. ah benn yoon di laa ko mos a dégg te sab taalibe bu nekk ca Espagne moom <laughs> war boppam wax ma ko loolu moom keroog laa ko dégg. maanaam rab bu duggee nit en distance sax mën na maa wax ak moom ba pare rab la war dañ may lab nit ki rab bi nekk ci moom rek mën a wax ak moom for na rab bi abal ko suñu wala nag may jël sama yëf naa Ousmane dëgg la ah macha allah kon loolu leer na eh, ci eh, wàllum ndax lu sonal doomu aadama yi la eh, ñu seetlu meneen mbir moo xam ne doy na waar muy yàqu-yàqu yu bari yi yenn ci commerçant yi ñu ngi daanu entreprise yi bari ci yoo xam ne ñu ngi tëj ba ci yenn télé yi sax ñu ngi tëj te loolu yaakaar naa su continuer dina doon ay jafe-jafe ci biir réew mi ndax ndaw ñi soxla nañ liggéey lool lool lool loolu nga gis koo xam ne day yore alal ju bari alal ji jékki-jékki rek wan ko ginnaaw Cheikh Ibrahima loolu lan moo koy sabab te mu bari lool ci jamono ji ñu toll nii. waaw doomu aadama day dafa am na ko suñu borom bindee. ñi dañoo am ñi ñàkk mbir yàlla yi sax da gis des fois nawet bi ñëw baax nawet bee ñëw lu baax ñi dañuy judd ñi di faatu ñi am ay jëm yu mat ñi am ay jëmm yu manki nit dafa am nu ko suñ borom bindee waaye doomu moom lu mën a nekk ci moom rek moo xam ay torof torof la moo xam lu mu mën a doon bu defee sabab bu jëm ca loola ngir pexe mu ko dindi yàlla mën na ko dindi lool teggil lool. moom nga xam ne moo ko dogal. mën na koo teggil loolu. fan la mën a jaar ba mu teggil ko loolu. waaw nee la nag àdduna nattu jaam yépp boo ko dajale woon teg ko benn jaam bu yoree ismu lay lancé mën na ko teggil loolu. seetaan émission bi tey dama bëggoon ñu tënk ko ci laa ilaha illallah waa dama ne dinaa wax noonu ma leeral la baatu laa ilaha illallah ci seex ngir nit ñi la bëgg ñu benn baat boo xam ne ajjana mën nga fay nekk dund fi juróom-ñaar téeméeri at di ko liggéey mënoo ko liggéey borom na baat bii day boo demoon bay faatu giir nii ku ci saw làmmiñ ba xamal jannata da ngay dugg àjjana adduna bii nga fiy liggéey am problème baat bi ne fi te mënoo ci lijjanti sa bopp te mën ci lijjanti àllaaxira ak programme ba nam toll waaw nga xam loolu moo gën rëy waaye ulil albaab hmm. <laughs> wax yaa nga xam ne lépp siraat ni mu diisee baatub laa ilaha illa wax nañ ni man naa fay siraat nga ne ci àdduna ne ci ay xat-xat laa ilaha illa allah fi salaatu ala nabi ne nga am soxla ba jaaxle mënoo leen a jël jëfandikoo ko xamoo wenn yoon woo mën a jaar ci ñaari baat yi ba génn ci sa problème yi te ñoom ñu tënk àdduna tënk alaaxira alaaxira benn yaakaar dong lañ fa am mooy yàlla mi ñu bind ak yonent bi àdduna fii benn yaakaar dong lañ fi am mooy yàlla ak yonent bi ñoom ñu ne ci àdduna nga am problème mënoo leen a jëfandikoo sëñ bi foo jëm hmm. ñoom laa am ñoom lay dimbalee ñi nga xam ne yàlla dina na nattu ñu ñëw ci léegi nag ci biir loolu euh, macha allah dugguma la sax sang bi euh, dañ ma wax mbir moo xam ne it euh, biñ ma ko waxee kat nee naa leen da ngeen di bàyyi ba ma amaat ak jotaay Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran su ko defee dinaa ci waxtaan ak moom muy mbir mu mbirum seet ndax man fekk naa la Gabon fekk naa la Congo Afrique du Sud naka noonu. gis naa fa nga daloon na mi mel nit ña di ko ran nga leen di seetal saa su nekk di leen gis ñu sàkku ci yow nga di leen ñaanal suñu borom di ko nangu waa Sénégal nag ban problème nga am ak ñoom ci wàllum seet si Ibrahima ndax euh, doy na waar lool ñi ngi ma koy wax euh, jot la ci wàllum seet yombul am na ñoo xam ne buñ la jotee sax pour nga seetal leen sax du yomb te wax nañ man it ne ma loo man la lool ndax am na lu ma ci xam te am na lu ñu ma ci dee it nag ndax man fu ne maa nga fa ban problème mooy mooy sa wàllum seet gi euh, ak ni ko mënee Cheikh Ibrahima dimbali ci jaamu yàlla yi nag ndax nit ñi yittewoo nañ ko lool lan mooy sa problème ak Sénégalais yi ci wàllum seet bëggoon nañ dimbali leen ci ndax loolu suñu borom dénk la te te yow su jaam yi rek ñoo la tax a jóg. waaye nit ki nit programme ñoom daal bëgg nañ ku leen ciy dimbali lool nag ndax ñu ma koy jàmbat euh, bari na lool macha allah. bismillah alhamdulilah jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, xam naa day mel ne li ñu amoon ci waxtu euh, euh, toll na ci jeex sa kàddu yu mujj Cheikh Ibrahima. jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ñi ngi lay sant bu baax baax ci yaatal gi ak jox gi nga xam ne jox nga ñu ko ci sa temps te ku ne xam ne amoo jot macha allah yàlla na la fi yàlla suñu borom yàggal subhanahu wa taala ñoo ngi sant bu baax a baax suñu caméraman bii ñu àndal nga xam ne liggéey bu rafet bu sell macha allah noonu la koy liggéeyee moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mbokk yi xam naa kon dañuy yëkkati jotaay bi ba yeneen jamono ci yeneen numéro insha allahu rabbi taala waltuf bina wa na wa kun lana wa abdina wasal xitaam na wa salin ala nabi wa sallimi waqdi bi ajata kulli muslimi wasalaamu aleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci barkeb say xi faddilu a buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bisimil barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama